a ñu leen di di la ziar. maa leen di sant di leen ziar yéen ñëpp mooy loolu. di jaajëfal ñëpp. jaajëf tey euh, ñu ne woon dañuy euh, nettoyer almeer yoo fi ñu gis la fi sa teewaay euh, kii tey ji lan nga yëg ba tax tey nga teew. ah daf ñu war képp ku julit ak ay bu gëmul julit ak lépp parce que fii mooy kii kër gu mujj gi. moo tax ñu ñëw fii tey parce que boo gisee ñun buñ nee armeel rek ñëpp war a jug parce que armel moo nekk loo xam ne koo gis ak koo yaakaar fii lay mujj. waaw bu defee lu liggéey nag dañu war a ñëw liggéey ko waaw parce que ñun jeunes yeeg ñëpp a war a jug ñëpp amul julit amul chrétien ñëpp daal Sénégal loolu la xam liggéey Sénégal mu jëm kanam waaw bu dee armée nag moom dañ si war a. gis la nga def exemple bu rafet bi tey la ngay wax jeunes yi a ñëw tey fii jàpp ci liggéey bi. non jeunes dañu war a yeew rek yeewu rek delloo lépp suñu borom parce yàlla moo yor lépp gars bu ñu delloo lépp suñu borom rek lépp dañ koy am amul lem lul suñu borom suñu borom moom boo ko gëmee moom nekk si ginnaaw suñu borom rek lépp la war waa jeunes yi ñoo war a yeew rek gëm seen bopp war a ñëw liggéey si. ñu tëdd fii dañ ci am ñoo xamante ne dañu sori ci ñun torop parce man ku ci mel ni suma maam nga xam ne moom moo ma yar ñu ngi fii xam nga te même bu dul loolu sax avant loolu man moom yii moom damay faral di ñëw quoi xanaa mu nekk loo xamante ne lu ma yëgul mais saa yu ma ko yëgee damay ñëw parce que fii même bu dara du ma fi géej parce que chaque àjjuma maa ngi fi xam nga kon bu ñu ko wootee pour ñu nettoyer ñëpp loolu kenn waruñ ci jiitu loolu waral suñu teewaay di ñaan ñi fi tëdd ñëpp yàlla na leen yàlla xaare aljana te yéexee ñu waa si ñu yaakaar ni li ah, exemple bu rafet nga joxe tey lan ngay wax ah, sa mbokk jeunes yi mel ni tey ñu ñëw teew fii jàpp ci liggéey waaw ñi nga xamante ne dañ ko yëg bu leen ko seen jot mayee pour bu beneen yoone parce que jeexagul des na bu fekkee jeexul tey dañ ko yeggiliwaat suba incha allah ku ci sa temps may rek euh, yaatu pour nga mën a ñëw ñu ngi lay tàllal loxo pour nga ñëw jàpp ci parce que lu kenn mën moom ñaara ko dàq bu gars yi ñëwee day ëpp doole am na ñoo xam ne am ñu temps am na ñoo xam ne yëguñu ko mais ñi ko yëg te seen temps may leen ko ñu ngi leen di woo pour ñu ñëw jàpp ci liggéey bi aussi tamit à chaque fois euh, gars yi di ñu xamal que ni euh, musulman bi ak euh, chrétien bi benn la parce que ci weeru koor gi tamit gis nañ ko day lépp loo xam ne musulman bi dafay def rek chrétien bi da ci jàpp même chose que ak musulman bi tey dañoo ñëw fii ci alméeri ñu ne alméeri tey dañ koy defar ñu gis ci benn chrétien ñu ko doon laaj tey jii nii naka la gisee loolu ak tey lan lañ mën a wax ci loolu quoi li ñuy defaraatee alméeri bi. bon jaajëf maa ngi remercier ñëpp surtout sant di la jaajëfate maa ngi tudd Jean Joseph jeunes chrétiens engagés de l'église Sainte-Thérèse de Grand Dakar bon ñun suñu liggéey si église bi mooy teewal képp comme nakar naqar képp ku am naqar ñu teewal la muy chrétien bi muy musulman bi parce que daanaka chrétien bi musulman yëpp benn la on de des frères et sœurs ñoo bëgg ndaay ak baay parce que benn Sénégal la du ñaar Sénégal quoi benn Dieu moom amul ñaar Dieu bon suñu teewaay fii ni man en tant que chrétien man saa yooyu musulman amee naqar ma yëg ko dañ si def fula fay def teew daw ñoo ñooy xale yoon cortège bi parce que ñëpp benn lañ daaw bii nii sama gars yi ñëwoon nañ fii cimetière bi nettoyage comme chaque année gars yi comme suñu mbokk musulman dañuy ñëw cimetière Saint-Lazare ak Bel Air jàppale ñu si nettoyage yi bii paa tamit gars yi dañ dem ba visage bay passé ñëw même bii tamit gars yi ñu ngi fii xam naa su fekkee def nettoyage parce que suñu maam yi suñu rakk yi tànn suñu papa yi yaay ñoo fi nekk kon boog doo xamee musulman bi chrétien bi parce que ñëpp benn lañ ko liggéey bu rafet la ñuy def si liggéey dañuy liggéey yàlla liggéey ñu pour fayee ko xaalis dañuy liggéey pour yàlla quoi waaw moo tax ñu jël instance bi jeune chrétien engagé daw di xale tari bi pour liggéey bu liggéey bu rafet mu côté musulman mu côté chrétien bi képp ku am naqar wooñu dañoo taxaw sa naqar fajal lox mu së bu mat sëkk waaw aussi tamit ah, ñu gis ne ah, tey jii nii ah, yaakaar naa ñun ñëpp benn lañ te la ban message ngay joxe ci li parce que dafa am importance très bu bu baax sax bon lii encouragé jeunes yi rek parce que lii dafa yombul yomb na ñëw yombul parce que di jige morgue ba wala di jugee euh, jox jàq ba wala église ba di daw ba ba fa cimetière loolu yombul. di laajte jeunes yi chrétien jeunes surtout jeunes musulmans yi comme lu chrétien di def pourquoi pas musulman yi mënuñu def parce que bu ñu bàmmee naqar naqar bi ñëpp ko bokk tey boo bàyyi sa liggéey ñëw sa naqar bi naqar bi da nga bo bokkal bi. kon jeunes musulman yi chrétien def je pense que loolu mën na ko def parce que bu ñëpp am nañ temps ba amee jot ba amee naqar ñu war a dëgg naqar bi nga bàyyi seen léegi ñëw comme ñun ba sama xalaat quoi ni chrétien def créé jeune mouvement yi moom pourquoi pas jàq bu ne créé ay mouvement comme dëj bu ñëwee nii ñu woo leen contact ñëw daw si tali bi bi gérer condoléances mu jeex parce que naqar bi benn la quoi defe naa da parce que ñoom nañu gis suñu liggéey rafet parce que daw si tali bi yomb doo entraîné ñëw dëgg nga daw que pas musulman mënuñu créé comme ñu ñu créé ni jàngal leen méthode bi ko commencé def boo faa liggéey bi gën a yomb bu faa chrétien bu amee kii mën nañoo songo ne jàppale leen di def gars yi seen seen liggéey liggéey bi rafet parce que li ngeen def ni tam liggéey bi rafet sa bàyyi lépp ñëw teew fii nii def indomie def affaire nice vraiment seen liggéey bi rafet na trop waaw. ñu lay jaajëfal allah. non man maa gën a kontaan parce que lii c'est ma def ko bala maa ko def sax moo jëf feu vert comme ni ma sànq foofu suñu borom kër gi laaj ko ndax am naa droit def lii parce que ñun dañu am njiit ñu def dara ñu jar si njiit ba pare comme day dem paye Macky Sall ka kenn def rek mu demande président ba pare président jox ko feu vert moo tax te moom insa def lii nii du dara nag on ñun ñu chrétien bi musulman ñoo bokk ndey ak baay waaw te liggéey bi jëm si kanam rek ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay quoi vraiment messi beaucoup. amul leneen lu dul sunu borom. almeeri tukulóor amul almeeri bambara amul almeeri soose amul te almeeri yoo fi nit ku ne tëdd na fi dañuy ñaanal ñi fi tëdd ñëpp yal na ñu xëppee àjjanay firdawsi yal na ñu dajee borom barrière or ba ca Médine bàyyi Fatima Roqoye bàyyi Umu Kalsum yal na yàlla defal ñëpp jàmm nag sunu réew mi jàmm rek di fi am cantax ngërëm nag day daal di ñeel ñëpp nag tey ji dañoo ñëw ngir nettoyer almeeri yi xam nga andi ay xéewal arma andi fiy xéewal andi fiy bernde pour ñëpp. jaayante ko nag ba mu demee nii bon cantax ngërëm day ñeer Arma mi ko fi aussi tamit mii yow mii ñëpp tamit yi dafa wat ku nekk aussi tey lan ngay wax à sa moroomi jeunes yi nga xam ne tey ñoo ngi fi ah, tey ban message nga leen di jàlle pour bu ëllëgee ñu ñëw di teewee lii. tey jii fii déglu la maam mi ku nekk ngi fi wala bàyyi ku ne wala turandoo yi ku ne wala mbokk ku ne tey armeer kër yàlla la ay armeer ay sën la yoo xam ne tey ji bu de defee ba mel nee nañ nañ ko yeesalaat defaraat ko ba mu jekkaat te ñaanal ñi fi tëdd ndax kii dem ñaan kese la soxla soxlawul leneen fi ay milliardaires a fi tëdd ay borom yi xam-xam a ngi fi tëdd ay borom yi daraja a fi tëdd ay ñoo xam ne dañoo wàcc kaamil fukki yoon ak juróom-ñett ñu ngi fi tëdd te tey ji mënaluñu seen bopp dara bon tey lan moo leen war ñëw leen defar leen ñaanal leen yàlla sunu borom kenn ku si jàng say fukki xul xoox benn jox leen ko comme addi yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ñaanal ñëpp ñu fi tëdd ñu xippee arjanay firdaws ndax ñaan kese lañu soxla soxla ñu leneen boo fi tegoon xaalis duñ mënuñu koy utiliser boo fi tegoon or mënuñu koy boo fi tegoon jama mënuñu ko ay ñaan lañu soxla nañ leen ñaanal ci ci barki yonent bi nañ leen ñaanal ci barki yonent bi lépp dina bàyyi incha allahu rabbi jërëjëf kàddu yi rafet na aywa jërëjëf cantax ngërëm ñeel na yéen waa Sénégal set euh, cantax ngërëm di ñeel te yéen waa Dakar net fu la jublu na fi yiw yàlla jublu yàlla na lépp baax incha allahu rabbi